nga dañ nekk ci période boo xam ne nii. Hmm. d' abord ci li mu bëggoon wax rek mooy que ni xam nga wax lu am solo ci communication. parce que mënoo convoquer la presse ñëw ci li nga wax ni mooy da ngay décliner quelques de ton programme. Hmm. pare nga wiiree feneen. une erreur de commun communication monumentale. Hmm. la preuve mooy que nii ba mu ko defee on ne parle plus de son li ko taxoon jóg muy maanaam programme bi mu waroon euh, décliner. mais on parle aujourd'hui de scandale man dama jàpp ne scandale yi moo waraloon ndaje mi mu yokk mu njàmbaas programme parce que ci demande bi loolu demande bi lu mu ci wax ay révélation mais moom programme bi la njëkkee. waaw mais moom laa wax bi ma bi ma paree neenaa man. Mhm. li ma comprendre wul mooy. mélange bi mu def. waaw supp kànja la. ah damay def lii damay fal leen ma def naa lii jaar naa fii gongo def naa lii def naa lii fal leen ma je suis l'homme de la situation je suis l'homme qu'il faut ah ñii kenn du leen ñii war nañu leen dénk réew boole ma dénkee. en fait finalement lépp da ko doon. delloo si le message da ko doon delloo si ci jëmmam. Ah, ci personnalité am quoi mais mais le message est brouillé actuellement nii. c'est-à-dire que actuellement nii convoqué na conférence de presse wax na ci lu mu ciy wax. mais kenn xamul lu tax conférence presse bu jóg. Ah, mais lu ñu lu mais lu génn te ñu jàpp parce que loolu moo tax mu jóg mooy li nga wax léegi. Mm. mooy peut être révélation bi. Mm. mais su nekk da nga am révélation convoqué comme nga wax euh, conférence de presse comme ça journaliste biy génn di ñëw. xam nga mélanger les ba ma nekkee Dakar dem di. mais mais contrat lii nangam jaar na sama loxo def naa lii. ba moo ci lié jël naa lii ci ay jeunes def bilan Dakar dem dikk ñëw ci bilan jël ci programme am ñëwaat ci c'était mais mais li li mu li mu li mu wax par exemple li nga wax léegi-léegi ci Dakar dem dikk man li ma jàpp ci maître Moussa Diop bu mu waroon def mooy mu wax ci Dakar dem dikk parce que il a été quand même de l'Académie pendant longues années nii lan dafa am. non non non je non en matière de communication. c'est-à-dire que hmm. moom fu ñu koy xaaree. parce que il a il a eu à euh, gérer des fonds publics. waaw nee foofu nice foofu. waaw ah, mais bien foofu nice rapport yi rapport yi. waaw waaw mais foofu yëpp loolu yëpp en fait li ma bëgg a wax rek mooy que ni Moussa Diop un acteur politique. waaw et nous dans une période cruciale moom la professeur wax. Mhm. boo xam ne nii dañu nekk ci ci presque presque euh, ci. processus bi moom tàmbali na yàgg na mais mm-hmm. presque ci élection yi ñëw na ba noppi. Mm-hmm. parce que lu daanaka lu ci desati motagul ñetti ñetti motatul ñetti weer. Mm-hmm. ñu dem élection. Moussa je pense que ce qu'il a voulu faire il a voulu rebondir. parce que Moussa Diop. comme ni ko professeur waxee. peut-être que c'est un problème de notre démocratie quelque part notre démocratie on peut dire que c'est une bonne démocratie mais elle est mm. parce que suñu demee di dem ci ay parrainage. ñu am plus de deux cent soixante cinq nit ci réew mi Sénégal ne dañ bëgg ku nekk ci ñoom nekk nekk nekk président jiite ñu mosoo leen dégg mu mosoo leen xam mu mosoo leen dégg ci benn débat amuñu benn parcours muy politique wala muy étatique amuñ dara loo xam ne mun nga ci teg du ci baaraam ne lii kii ay la yowén kii suñ la romboon léegi man man mi Mamadou Wane hmm. nekk ci champ politique bi depuis quelque temps peut que maa leen gën a siiw donc loolu dafa dafa nekk ci loo xam ne nii dafa dafa dafa dafa doy waar. donc comme Moussa dafa bëgg période bi ñu toll nii. ñu bàyyiwaat xel ci moom. ñu bàyyiwaat xel ci moom. parce que parce que euh, il ça ne bouge pas sa campagne man xamoon ne sax candidat wax dëgg neex yàlla. xamoon ne sax dem na retiré parrainage ba ba ba dafa bëgg doon président yàgg na nag c'est vrai que yàgg na bëgg. mais on l'avait perdu. dans la dans la masse parce que y a de képp koo gën a dégg rek xaar ko ci parrainage bi mu mu ngi taxaw donc loolu je pense que y a un problème démocratie bu toll nii muy États-Unis l'une des plus grandes et vieilles démocraties dans ce monde ñoom ñaari parti politique à la souvent sa nga gis benn un troisième larron ñooy jongante pour jiite réew mi si c'est pas les républicains ce sont les démocrates Angleterre pare. Angleterre pare. Hmm. France bëri na parti mais mais quelques rares partis ngay dégg. ci joŋante ñuy bokk ci joŋante ñuy bokk. mais ñun Sénégal suñu ñu duggee ci presse bi toog sa bënn ku nekk bëgg a journal suñu duggee ci politique bi la même chose. aujourd'hui nous avons presque plus de trois cent cinquante partis politiques te yoo xam ne dañu war a respecter règles yi chaque année dañu war def seen déclaration dañu war a def seen bilan dem déposer ko ministère journaux yi balaa muy génne dañu war a def dañu war a dañu war a jël jël euh, exemplaire yóbbu ko ministère de l' intérieur mais on respecte plus les règles. et donc dans ça à qui la faute. non non mais à qui la faute c' la, la faute à tous parce que ñiy ubbi journaux yi wala ñi bëgg a doon candidat. wala ñi bëgg a faire xam nañu bu baax leen leen loi bi teg. mais loi bi ñi ko war a saytu est ce que ñu ngi koy saytu. ba ku mais mais je c'est pourquoi je dis que fii on est on est des nañu réew mi mu tëdd. donc mussa pour revenir à ça mënoon na mënoon su bëggoon vraiment euh, euh, et puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'empêche de de saisir le procureur. il a il a des documents. il dit que il y a des choses qui sont passées man j'ai vu ce matin avant may yegsi j'ai vu que y a l'ancien directeur euh, des mines qui a qui a qui a fait soit une a fait une déclaration. Mm-hmm. Euh, sur sur sur Facebook pour dire que. pour pour démentir. oui démenti kay commencé na. waaw mais mais mais mais parce que parce que Moussa su bëggoon dëgg rek. da dem jox procureur. lu ko mu jël tamit. waaw non mais dama ne Moussa c'est un avocat. déglu na je suis à la disposition mais nee na mu ngi ci disposition. man su ma ko waxoon du ma fanaan sama kër. loolu mais loolu dafa yóbbu rawatina nag ku toll ni moom. mais xam nga xam nga xam nga on est dans une période politique boo xam ne nii même su ko procureur jëlul luy arrangé Moussa mooy peut être procureur wax ci ubbi ci euh, def ci enquête. ouvrir une enquête. liy arrangé askan wi man laa. waaw oh, waaw ah, mais d' accord mais expliquer rek xam nga kii ko wax c' est pas un innocent. mais ñi mu tudd tamit du ñu ay innocent. waaw oh, ah, mais mais ñooñu. ñooñu ils ont commencé ah. ils bien sûr ñaaña jaay lu tudd. Mimran mais xam nga Diagne Ndiaye mais xam nga Diagne Ndiaye Macky Sall mais xam nga Diagne xam nga lii yëpp ay tooñ la rek parce que Diagne Ndiaye du ma tontu la xam nga xam nga Diagne Ndiaye c'est un homme peu de Sénégalais le gën a discret c'est des hommes d'affaires ah. seen yëf siiw bien sûr mais xam nga ay ay Diagne Ndiaye xam nga di tudd ay nit di di di bugg rek jusque pour buzz. mais yow lan moo tax nga bëgg a setal ñooñu aussi maamu. non mais non setaluma kenn de man la setal man. non mais nee nga ko wax pour xam nga man entre nous. c'est ce matin que j'ai entendu en tant mbir mi leer. non non mais mais dama ne xam nga man je pose des questions. oui pourquoi maintenant si la si la waaw du soxla naa ko rek xam nga moi moi. c' est pas c' est pas doyen doyen wax na pour manipuler l' opinion. ah oui parce que su parce que moom en tant que avocat su bëggoon dëgg am rek. il ah, connaît très bien les pour mun a am leer leer leeral mbir. Mm-hmm. mais man li ma gëm mooy que ni il va en faire un gain politique. pour créer créer euh, euh, génne ay scandale te xam naa ne maître Moussa Diop ni ma ko xamee nii. Mm-hmm. ah pareegul. parce que c'est un homme de médias et, et malheureusement il fait des erreurs de communication ah dafay dafay bëgg tout le temps être au au professeur a dit tout à l'heure et c'est important cette semaine là lépp lépp mu leer hmm. su ah su ñuy génn semaine bi ah, dañ xam ku ku ku matal ak ku matalul. Hmm. on va partir de deux cent soixante cinq et on verra si on on on aura te di xaar nag le conseil constitutionnel qui en dernier ressort mooy valider lépp qui en dernier ressort mooy valider lépp. mais mais on a man professeur je sais pas euh, ndax seetlu ngeen mais mais euh, consignation dépôt kii euh, euh, euh, le bureau de de dépôt là de consignation. wéet bi mu wéet. non non mais waaw wéet bi mu wéet. kan mooy joxe 30 millions ci Mali. mais mais mais mais bokkul ak bokkul ak buuxante buuxante yi amoon. on a parlé. bokkul ak buuxante de. ak xeex xeex beeg rang beeg. durante pour fañ yeeg pour jëli pour jëli pour jëli ak xuloo yeeg yooyu. waaw mais mais mais mais actuellement nii actuellement nii caisse de caisse de de dépôt et de consignation là mais c'est pas c'est pas. c'est par la grande affluence ah. on le ah, donc il faut gars yi bàyyi caaxaan sénégalais yi il faut ñu bàyyi caaxaan élection président de la république du caaxaan. Mm. du caaxaan. mais yor réew tamit du caaxaan. waaw mais loolu laa lay expliquer. Ah rôle réew ak élection présidentielle du caaxaan donc il faut que ñu éviter vraiment euh, euh, nañ jàllale lépp ci yoon. njaay yëpp du yoon mais di créer di tuumal ay doomu aadama ndax parce que tout simplement tu tu as tu as un problème de de de de de de relever ta campagne tu as un problème de de parce que su ma la waxoon léegi ko xam parce que tey à tout moment il préfère euh, que les gens parlent de lui est-ce que il a déjà déposé d'ailleurs est a par accident. xoolal loolu moo ko wax. même par accident confiez-moi